sëñ Tuubaa auzubilaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki Sénégal mbokki taalib yi ñu ngi am mbégte mu rëy a rëy di feeñal sunu xalaat ak sunu yéene jëm ci liggéey bu tedd bu màgg bi fi ñu kus ñu ku ko tedd ci bàyyeeloon Muntaxa am tawfeex yi màndargal ko ñu am ci gis-gis boo xam ne yéeme na lool ci mën a am kàddu yuñ ko jooyale waaye nag ju feeñal ci sunu yéene rek eh, ndax ni ko àdduna bépp xamee rawatina yoonu murit yoon wi dafa am lu nu sëñ bi bàyyeel muy ay ndénkaane mu tënk ko ci xam-xam ak xalaat yu rëy yu kawe yoo xam ne ba ba àddunay tukki jaami yàlla yi dañ ci jariñ loolu nag bokk na ci tuubaa ci boppam muy jëmmi dëkk bi ak lii tax jaami yàlla yi man fee nekk ci nekkin woo xam ne dana dëppoo ak wooteb sëriñ bi biñ ko wooteloo te lépp di lislaam lépp di ak wéetal yàlla loolu mën a am mu war a am ay màndarga yu koy firndeel bokk na ci jumaa ji bokk na ci ay barabi xam kay xam xam xam xamu xamlukaay bokk na ci bokk na ci lu bare bare bare luñ munta lim mu mel nag ni sëriñ bii fi nekk tey yàlla na ko fi yàlla bàyyi mu yàggat fi lool ci ànd yàlla bàyyi ko xelam mu ngi sof ci li fi ñu ko jiitu bàyyi woon ndax tey ku ñëw Tuubaa da nga fa fekk da fa fekk ay barabu jaamukaayu yàlla yu bari ni dëkk bi yaatoo rek ni la jumaa yi ak jàkk yi yaatoo barabu jàngukaay yi di ay daara ni dëkk bi yaatoo ni la fi yaatoo waaye nag kenn natteb liwut ne <clears throat> ci àdduna bi ñu toll dañoo topp dañoo toll ci àdduna yu ubbeeku ubbeeku nag ku ko wax ku ne des na la wuy si waaye da wuy ji mu mel ni bari na fii ay doomi dëkk bi yoo xam ne tey ay boromi xam-xam dañu tedd ci bi ñu jàngee ba seen àlluwa jàpp ne war nañoo génn xami lu ñu xamut lu ñu xamutoon wala ñu yaatal li ñu xamoon dañoo génn dëkk bi jaayante dem wuti ko andi loolu kon ci ak ubbeeku la bokk waaye it sëriñ tubaa am na fi bis muy màggalu Touba su safar ñu ñëpp xam nañ ni bis la bu xam ne àdduna bépp ku bokk léegi loolu it ak ubbeeku la mu mel ni ay nit dañu jóge fu ne di fi ñëw dëkk bi nag war a doon dëkk boo xam ne ku fi ñëw ay màndargaam moo war a doon lépp luy symboliser l'islam lépp luy rafetal diine lépp luy ñoŋal xam-xam lépp lu nga xam ne dana dana dana dana akub yar ci diine muy tarbiya wares na ko fee jàng te loolu bari na ay dëkki lislaam yoo xam ne am nañ barab bu jaamukaay am nañ ay jàkka ak jumaa waaye nag am nañ fi ñun lu ñu amut lu nga xam ne bu ñëw war nañ ko fay gis loolu bokk na ci am ay barab yu rëy yoo xam ne àdduna bépp koy bokk waaye yoonu kenn du ci ne ku du yoonu murit ñooy jël seen ñaq ci def duñ ci laaj kenn dara benn organisme wala ñu ci woo benn état loolu seen yëfi bopp la ñoo koy jaayante ci seenu ñaq muy xidma loolu la ñuy jàngi si fii lay doon ak lu àdduna yaatu yaatu ak lu lislaam mu rëy rëy rëy loolu anam la boo xam ne ku ñëw fii de man nga ko fee jàngi loolu nag dafa mel ne tey li fi taxaw lépp looloo ko taxawal ba egsi ci université bi nga xam ne sëriñ bi moo ko digle woon bàyyi ko fi muy barabu jàngukaay mu mel ni ne yàgg gis naa dégg université bàyyi laat yàgg na lool tey mag ñi fi nekk tey di ciy wax bi ñuy wax université bàyyi laat boobu ay gone lañ waaye nag sëriñ Touba ak liggéeyam kenn ku ne cër moom la ci cërale su ñëwee la nga war la nga ciy def yaa koy def sëñ Muntaxa nag moom la yàlla tërale université bi tey mu war ko defal sëriñ Tuubaa defal ko ko ba mu si fii mu egg ànd ko ay bokkam waaye ànd ko ak yoonu murit ànd ko ay ak lislaam képp ku ci nangu waaye nag mu njariñu lislaam bépp te njariñul képp ku bëgg xam-xam yàlla it dimbali ko ba mu egsi fii mu egsi ndax université suñ ko dee wax taax yi moo ci gën a néew ndax taax yi barab la rek buñ koy màndargale nit ñi di dugg ci biir di jàng waaye suñ xoolee lay tax njàngama mën a nekk tàmbulee ko ci ña fay jàngale ak ña fay jànge nañ fay nekkee la nga xam ne moom la laaj lépp ci ay jumtukaay ak ay moyen loolu liggéey la bu nga xam ne sëriñ bi waxoon ne bu mu laal suuf waaye liggéey buy wéy la kon nag ñun ñëpp nañ jàpp ne lii ñu ciy góor góorgóorlu di def sëriñ Tuubaa lañ koy defal waaye luy wéy lu ñuy war di def la dañ ko war a boole ci sunu jaamu yàlla ni jaamu yàlla doone farata ci ñun ni la war a doone farata ci ñun ndax xam-xam lay jur ju ko xamul doo mën a jaamu yàlla jaamu yàlla ko sell mu doon it ndigal ci ñun comme dañoo dënk dañoo tënku ci ay ndigal ndigal la loo xam ni duñ wàcc mukk ndax lépp lu koy lu koy tax a dox ci ñun la war a jóge waruñu koo séntu ci fenn waruñu koo séntu ci kenn kon ñu laxasaay waat fas yéene ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi egg na mu war a egg waaye nag doxe na mu war a doxe ñu gunge ko ci lépp mu yàgg ñoo jiite it nag mu fekkee doxinu ba xolam sedd ci guy xelam dal ci lool ci liggéey biit mu bañ koo yamale foofu waaye ñu ànd ko ak moom ndax moom kat dalal na sunu xel ci lépp ndax mi ñu jàngal ak sëñ bi mi yokk sunu pas-pas mi ñu jàngal ak taalibe ñu ngi wan it ne sëriñ bi lu ko waaye sumbal ak nu mu mën a toll bu fekkee yàlla ak moom dong nga tax dana mel na mu war dana mel na mu ko bëggee na mu bëgg mu mel loolu it mi ñu jàngal ak dogu ak fit waaye lépp nag tegu ci dëgg akuk jaayante gu mut mu mel ni kon wax ji mu gudd ak mu gàtt kàddu yi cant la kàddu yi dolliwaat sunu pas-pas kàddu fas yéene laxasaayuwaat ànd ak moom ci liggéey bi ànd ak sëriñ nag ci ay ndigalam waaye kàddu yi ñaan rekk la sunu boroom eggale yéeneem waaye eggale yéene yi ak mbokki taalib yi yépp ci bépp bu jóge ci moom jëm si ci ñun yàlla may nu kàttan ñu mën koo jëfi nam ko bëggee te daje ci ak ngërëmul sëriñ bi mbokk yi defe naa kon mu gudd mu gàtt <coughs> wax ci dañuy jafe lool ndax amuñu baat yuñ mën a génne ci suñu yéene ci buñ ko nat gam-gam le su lii nekk ci ñun ci ay yéene amuñu baat yu ko mën a génne waaye nag ñu xam ne mbir la moo xam ne jëleel naa jullit jullit yi jëleel naa yoonu murit waaye képp ku bëgg xam-xam rek képp ku doomu aadama ñor rek mbir mii xam nga ni yow lañ ko defal kon nag yàlla yàlla nañ ko jariñoo ci yàgg koo jariñoo rek waaw salaamaaleykum wa rahmatullah